গতকাল C'est l'important du territoire national. C'est bon, c'est bon. Oui. Il m'a bien escorté, c'est bien. Tout namaskar ñu wóoree Dakar bu laaj. waaw bu leen dëgg bopp quoi dafa leen ñu dëgg ko. boobu moo leen laajee ba bu ñu gisee situation bi dana ko laaj Macky Sall moo ngi dem France quoi. sell bi sell bi <laughs> kay génnal ba mu neex la bu la kenn tey grand jàmm rek ngay am Seydina Mohamed xoolal jàmm ngay am il faut ndeysaan Gracias. li ma taxaw si kanam. Fils d'embargo ou fils de passe Quel est le problème Pourquoi on barre les, les, les gars pour entrer chez moi Là, vous pouvez venir. J'ai mon épouse qui dépose mon fils en école. Attendez. Oui. J'ai mon épouse. Oui. Mon fils a cours à 10 heures au lycée. Avancez, défendez, ça c'est mon épouse. Vous ne pouvez pas rentrer. Voilà. Maintenant c'est la sortie. yow boo xamee sama soxna moo ci nekk. bàyyi nga fi mu jàll. voilà. mon fils ak sa femme. soxna président la soxna président Sonko. son fils. ah vous appelez Macky. dégg nga président mi ngi koy wax ne vous appelez Macky. président mi ngi koy wax ne vous appelez Macky. j'espère que vous n'appelez pas Macky Sall. je m'autorise là que ma famille puisse sortir. Monsieur, on peut reculer un peu, madame, en attendant qu'on fait la Vous allez pouvez vous dire. Ok. waaye ñu ngi dañ ko téye dañ ko téye ñu naan ak noonu voilà la réalité donc ñu ngi wax ne président Ousmane déjà demandé des autorisations président Ousmane dañ leen ko mën a xanaa dañ leen woo Macky te après autorisation lañ leen Kayak arsile lah, kayak arsile lah. Mereka mau kompromi lah, awasan. Mereka mau kompromi. Non, non, je pose une question. Mettez, mettez vos barrières. Ne pas vous. Mais vous ne mettez pas vos barrières. D'accord. Je veux savoir en vertu de quoi, aujourd'hui, moi, Ousmane Sonko, citoyen sénégalais, Bravo les gars. Un citoyen. micro bi génneel micro bi génneel. xollil xollil yi tey lii moo xew balaa réalité laa réalité lii moo xew Sénégal. Salir, salir, dönme, dönme. Tamam diyelim. Dökülün. Sénégal yëpp ñu ngi nuyu di leen euh, sant xam naa ni vous êtes nombreux monsieur yéen a gisandoo li xew ci réew mi mais lii yëpp li ñuy firndeel mooy panique bi nga xam ne Macky am na parce que lii rek doy na des déjà waaye nekk nañu ci réewu droit ndax ab citoyen sénégalais boo xam ne amul benn interdiction bu ko frappé nga génn këram amul sañ-sañu génn këram dem njabootam bu ñu waree génn gis ngeen dama obligé accompagner sama soxla ba fii léegi la sama euh, bon bi jóge marché waaye dañoo bañ taxi bi dugg jàppale ko pour ñu dugal bagage yi loolu nag panique la rek parce que ku ñu ne dangay ngay nga ne du ñu manifester xam ngeen lii ñu déployé tey ci ay ay moyens pour ne dañuy tere manifestation am bu ñu bàyyoon manifestation bi lu gën a néew loolu la leen di jaral waaye ñàkk gis-gis ak ñàkk xam-xam ak dëkkee ci panique jox la réew ñu ne la defaral doxalal yoon doxaloo yoon ba mbir mi war laa dab nga affolé dinañ ñëwaat sax fan yi ci wax leen li tax Macky Sall tey. mu tiit tiit gi mu tiit te mu jara ko bakkanam plutôt ko ñàkk nguur gi parce que moom xam na li mu def dinañ leen ci jox ay firnde yu leer a leer a leer moom ak ñu bëri ñu ko wër loolu mooy li xew senegal dafa jot nag sénégalais yi xam ni bu dee caaxa jàpp nañ ni caaxaan ak voté ak dem urne moo fi jëlee Macky Sall dañuy nax suñu bopp il faut ñu won Macky Sall ni moomul réew mi doon ko ci ay waajuram niñ ko ko joxe woon noonu lañ ko bëggee mu delloo ko nit ñi ñu ngi leen di gërëm leen sant merci. combat bi dañu ko def on va résister moom la wax moom la ñu def tànk tànk baggal bat ñun wóor kenn doyuñu si ñun sa protège sa protection ñun képp la doy ginnaaw yàlla ak li nga wax ne askan Sénégal moom ñu si bopp wax naa seen xam jeune bi nga bàyyi ñu ne moom fii la jàmbaar moom événement marché yàlla defu dëgg wax naa Cheikhul Khadim duñ la bàyyi mukk at bi gasafal daal mooy ko waaw ah? dundal ma dundal Ah bon